tey dañ fi ñëw vraiment di naqarlu li nga xam ne dafa xew également woon askan wi lu ñuy dund coono bi nga xam ne depuis ñaari at ñu ngi ko fiy dund parce que dañu commencé woon benn formation professionnel parce que ñu ngay gis ñi ñëpp ils étaient dans des services euh, biñ fa jógee at mi concours ñëw fii te d'habitude formation yooyu professionnel fu ñu ko doon gis chaque fois day am loo xam ne dañuy am benn accompagnement muy lu mel ni njàngale bi dañ la ciy gunge mais bu weesoo njàngale mi également ku ne xam na ne ku nekk fii dakaar day metti même bu dul dakaar sax dans les régions nga nekkoon service fu mu mën a doon ci Sénégal boo déplacé wu dajale ni ñi liñ gis depuis liñ xam formation professionnelle boo koy def am na appui boo xam ne dañ la koy def muy genre bourse wala ñu ko pécule destage mais également booy pare formation am na lu ñu lay jox parce que da nga war a bind mémoire présenté ko te pour bind mémoire dafa am juntuwaay muy laaj day laaj xaalis mais également day laaj ñu mel ni ay logistique te yooyu yëpp amu fi yooyu nag euh, dem nañ demati demati demati demati. ministère amul fu ñu gisut chef de division de la formation gis nañ ko ak équipe am yëpp euh, dem nañ gis sax madame la derage ay plusieurs fois. Euh, bi ci mujj sax li ñu ci gën a bett mooy bim ñu nee man fi nii sax dama tayal chaque jour di gis les même personne sur un même problème te mu waroon nekk suñu yaay waroon nekk également koo xam ne bu ñu jaaxlee ci la ñuy wéeru mais loolu daf ñu bett leneen li li ñu bett mooy euh, bi ñu def formation bi dafa am ñu ñu àndaloon suñuy naataango suñuy nawle ñu def procédure yi ñuy def ñoo ñu di def yeneen master ci yeneen filière mais ñooñu jot nañ seen ndimbal wala seen appui pécule euh, ci formation bi donc lan mooy ñun tey maste en thérapie de suppléance rénale ñun kese kese kese ci Sénégal mënuñ ko am te ñeneen ñi am ko te ñu demandoo au même titre di def formation même titre euh, loolu vraiment dañ koy naxaru également di lancer un appel à autorité sénégalaises yëpp euh, commençant par le ministère de la santé moom mi nga xam ne moom moo ñu njaboote vraiment mu ñëw dëggal ci loxoom parce que yaakaar naa lépp lu fi nekk ci moom la sukkandiku. Euh, également gis nañ nguur gi ki ne également li ñuy taxaw surtout ma kàddu yi ñuy joxe am nañ ci yaakaar surtout ma bu nee jub jubal ak jubanti donc ñun jàpp nañ li ñuy li ñuy def injustice la donc war nañ ñëw jubanti ko ba ñeneen ñi liñ jot mu doon droit parce que noonu la doon demee ñun tam également mu doon suñu droit ñu war ko jot. Euh, ñaar fukki nit ak juróom lañ ñaar fukki nit ak juróom lañ. dafa am loo xam ne ñoom c'est des techniciens xam nañ nan lay demee parce que yàgg nañ suivre formation bi mu nekkee technicien supérieur ba mu jógee fa tey nekk ab master donc dañoo gën a relever niveau bi te yaakaar naa li nga doon jox technicien supérieur bi waroo ko wàccaat parce que da ngay yokk niveau donc boo doolee cere moom dolli ñeex rek nga ci def waa donc nag loolu la vingt 24 mois la d'habitude la formation c'est c'est c'est quatre donc quatre semestres boo ko calculer ñaar fukki weer la ak ñeent waaw également bu weesoo loolu dafa am loo xam ne comme li ma wax mémoire bi tamit d'habitude dafa am lu ñu ci doon joxe loolu benn forfait tamit peut-être ñoom xam nañ ni ñu ko doon defee euh, ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom